aqaab nee na walil ruasaai xissatun walil umaraai xissatun walil muluki xissatun buur dafa am dimension ak dignité ak dayo buñ ko war a jox ah, ah, dégg ko dégg ko kon Ousmane ak Diomaye su ngeen amee kilifa yi ngeen war a seet ji wala jël ay conseil jël leen ko ci ñii pas di dem tiim ay paa yu ñàkk fayda football sen àdduna yi ba mu mat taxaw si kanamu nit ñi taxaw ci seen mimbar kese dara mayu leen daraja dudul, dul duul yu metti ak napp waa koñ bañ nekkal yéen ñu rey leen fii rey seeni xale def leen fu lu nekk ngaanguñu ngeen ñëw ñu tiim leen di leen jàpp ay naan waaw jàkk ji suñu jàkk la waxinu reewande yooyu nanguwuma loolu sansel beneen jàkk jooy jullee ji jomaay village waa nga juddu nga ba toll ni nga tol grande mosquée musoo koo xam sansel jàkk ñun nag ñàkk ñu fay fayda ñu ngi toog yebal leen wóolu leen lool fonk leen lool bugguñu ku leen tooñ bugguñu ku leen fontoo nag waaye nag attention de fulla ci ñaari boor la dañuy am fulla waaye fulla gi yéen ñu koy gëdd gi yene koy yene ñu koy jox muy ngeen am fulla ci seen bopp ñi fi jaaroon ñu tapet leen di ñi kanam la rek du kaso waaye koo ci tëj mu gis ko ferme leen ba mu ferme rap ferme leen seen kanam ba kanam gi foo tourné mu naan rap rap rap rap rap rap tëj leen seen kanam yi amul re, amul kaf amul nangam li ñu respecté woo ñeneen ñi te jëriñu ñu dara yéen ngeen taxaw pour jëriñ ñu nañ leen respecté noonu réew mi yépp nag laa wax loolu bu ngeen ko deful di ngeen di problème de parce que ñun on va pas se laisser faire kon kilifa yi dem leen ngeen di leen seeti di jël ci ñoom ay conseil gën leen a jege que mbaam yii ngeen jege mbaam yi ngeen di seeti jaruñu ko sama baat ci kaw nag conseil laa leen di wax ba ngeen faloo laa leen ne bu ngeen xaritooyee ak paa yi ba seen xaritoo dëggu ñàkk ngeen ndaw yi lu leer laa leen wax parce que yi réew mi daf ci bari ñu buggul xale yi réew mi te xale nag mooy développement loolu la ñu yeneen dëkk yi rawee du lenn nag fonk seeni xale donc la leen yàlla joxe xel ak doole juñ ñu nappi olof laa làkk nag olof laa làkk de yéen mo ma yéen ëpp dayo waaye ëpp leen may at conseil laa leen di jox voilà yëpp léegi nag ñu jàll dama dem lambar mari ba ñëw nag andi naa suñu góor gu baax suma ci jógee nag damay daldi di indi ha, suñu premier ministre bi nga xam ne mooy mu jaddit bi li nga wax yëpp d'accord naa ca cent pour cent li wax yëpp monsieur Bokoum li wax yëpp mën naa ko ne li nga wax yëpp d' accord naa ci à cent pour cent li mu wax yëpp te di leen félicité it ndax patriotisme mi ngi commencé chaque jour ma wax na ko patriotisme mi ngi commencé sa kër ku nekkul patriote sa biir kër mënoo ko nekk ci sa koñ te ku nekkul sa koñ mënoo ko nekk ci commune bi waxuma laa ci département ci région ak noonu lay tasaaroo ba réew mi yëpp donc li mu wax yëpp ci constat d' da, accord naa ci waaye păi, monsieur Bokoum. ñaar mooy problème bi bu njëkk mooy problème mu timing gis nga loo gis dafa am nuñ koy régler am na régime buy doog a egsi parce que lii nit ñaa ngi koy dund depuis des années xanaa kay dinañ may tuuti régime buy doog a egsi mu euh, cadrer li muy def proposer des solutions commencer dérouler loolu am na ci solo. premier ministre bëgg na tamit ñu xam ne pression du ci am.

mais dañ nekk ci réew moo xam ne rapport bi am diggante bi daan am bokk diggante état ak nit ñi mooy toujours rapport de pression la de chantage de menace bu état bi deful lii ñun lii wala état bi war nañu wala dootuñu ko woteel wala wotewuñu ko woon ngir lii déedéet ñun nekkuñu ci dynamique gu xool ay mandat <coughs> mandat bu waree ñëw rek dina ñëw yàlla koy joxe lañ ci war a def nañ ko def mais mandat bi ñu jox nii pour ñu defar réew mi liñ ci war a def pour réew mi defarul nañ ko def buñu yeggé ci ca pandaw sénégalais bu né dina xol est ce que résultat ñëw na wala ñewul mu mu xol nu muy tanné ci base boobu motax autant duñu duñu nangu ay riverain di régler sen bop autant it commerçant mënul ne sama jëriñu bop rek la xol ba tax dañ ma wara bayyi parce que ndaw la dama wara liggéey ah suñu deful li dañuy dem agressé ci wala dañuy dem déedéet bëgg liggéey du tax galor kenen Donc tam mënu il y a un juste équilibre à trouver entre tout ça. kon ñaax na ñëpp ci muñalante waaye nag am na lu mënul ñàkk. li nga xam ne lu leer la te lu ñu mënul nangu te instruction yi ñu joxe nag fépp la ci marché yépp ci Sénégal ci fépp la mooy. tali bu ñu defar nag bo gudon ne ko défaral ko trottoir mënu ñu nangu nit ñew bloqué tali bo bo auto mënu fa jaar kooku mom duñ ko nangul kenn parce que loraange weesuwut loolu deureum bi mo wara am warul tax ñu bloqué ben tali carrément bo auto mënu fa jaar koku du bok ci tolérance bi bu weesoo loolu nak ya ca des la ñaan ñepp muy riverains yi muy commerçant yi mooy ñu muñalante tuuti kon ay mesures d'accompagnement en attendant les mesures structurelles yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi terminer togg gi te dinañ ko lancer ci fan yu néew di ci woo ñépp nag ñu jàpp ci mesure d'accompagnement mënul ñàkk ci solution yi ñuy bu weesoo Colobane premier ministre bëgg na kàddu yi ñëpp bàyyi ci xel ndax du Colobane rekk am problème marché yi dund yi la jafe-jafe bari nañ kon premier ministre ne nañuy farlu rekk ci mesure d'accompagnement yi du gunge commerçant yi waaye buñ leen gunge ba noppi la ca war ci liggéey ñu mën koo matale. voilà nga ngalaama premier ministre. Thierno bokum Thierno bokum yow li nga wara wax ak ñun moy sa dom ja nga sànni ca fosse ba lool nga wara dem lijjanti ji comme rew mi mom rew sacrifice la sacrifier nga dom ji lo upp bop ba tay mëno dajale fukki nit Thierno bokum yow dama bëgg sa data bi ni nga ko keppe won continuer nga keppe ko nonu bërëng day mo la formé rew mi bërëng day xewi fi rew mi amatul ay day yu ñuy bërëng nit ñi doonatuñ ay day ay nit lañu yeewu toog di leen xool Idrissa sek formation du mësa falu ci réew mi wala am fi dajale fi ñaar fukki nit dootul amati cerno bokum. yow ci nguur gi amo loy kaas amo loy joy marsa ambulant yi nag gàcce ngàllaamaa yéen ni ma ko won rek dama len fal ngeen ta nguur gi ngeen fal bu ngeen sagane bañu ñu nak mom bu len yabo ñu wat ay gal nguur gi ngeen fal bu ngeen sagane ba seeni bëgg-bëgg wala ñu ne ci réew mi jaxase leen ak nguur gi ngeen fal bu len yabo ñu daaj gal ta dem parce que nak dama len ko wax say su ne na leen am na liggéey boo xam ne ci taxut nga yaakar ne li moy yoon bayyi sa kër ñu nek ci jamm nga dem tok buntu kër jàmbur fat ko wit di fa amé teranga boy yobbo sa kër ta do bayyi buntu kër ga nga joggé dara koku du xel du xel nañ ñaan yalla nguur gi fi nek yalla may leen ñu may ñu espace bo xamné bu ñu né dem leen ca ñu dem fa tay bayyi dankalo xey suba né wërsekk bi benn bërepp lak na né lolu amul fenn amul fenn kon gàcc nga ma nak dama leen di sante di leen gërëm di leen tatagal ndax ay jàmbaar ngeen ta xam ngeen fa ngeen war taxaw ba saytaane yi jógee borom bopp bu rëy bi waa kër waa télé duulkat yi mbugaan géey dani kattekat bi borom karcher bi kooyu karcher bi ki yaakaar ne réew mi moom boucherie la dañu war a daggati réew mi comme yàpp ba ñëwee te ngeen leen seen place affaire mi pootum biir la ay a fi nekk ba léegi te lijjanti wuñ leen ñooñu nag ñoo bëgg paa bu ñu yëkkati rek na doon paa boo xam ne day naqari Ousmane yéen tamit da ngeen ci am part de responsabilité mooy taxaw tembe defanteeg ñoom ba mu saf parce que yàgg na fi te kenn defut fukki at ak ñaar les mêmes maires ñoo fi ne même députés yi ñoo fi ne musuñu ñoo musuñu leen a ñor kon bu jamono jii lañuy ñuy jóg pour jéem dara ci ñun fulla googu faw ngeen am ko nag dégg ngeen fulla fayda mooy jaay daqaar doo fal ba noppi di yàccaaral bala nga waroon a wan ñu ne ko duraam nga tok di xoolewaat dah dégg tewas. maa ngi len di sant di len gëreum marsan ambulant